Mais non, noonu ñoo ngi génn fi nga xamante ne moom moo di hôtel Azalaï de démarrer la caravane du président Ousmane Sonko et du candidat à la présidentielle euh, Bassirou Diomaye Jahar Faye ñoom ñaar ñoo nekk fi nga xamante ni moo oto baa ngi noonu les deux présidents ñoo ngi noonu président Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñoo ngi fii ci oto bi il sont deux ils sont en train de discuter comme d'habitude ñoom ñaar ñoo nekk nii Azoura Fall toujours au poste président Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko. Ici à la corniche ouest de Dakar. Sorti de l'hôtel Azalai. Le président Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Djakhar Faye. Menginonou, Menginonou, l'équipe se met en place la caravane s'organise caravane ngi noonu caravane baa ngi noonu président Ousmane Sonko moo ngi ci oto bi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo ngi La caravane se met en place. La caravane se met en place ici à la corniche ouest de Dakar. La caravane se met en place ici à la corniche ouest de Dakar, direction Medina, direction Dakarou. mi ngi noonu ñu dox tuuti xool équipe bi xool dispositif bi Ousmane Sonko ànd ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngi noonu corniche ouest de Dakar corniche ouest de Dakar mi ngi noonu cour suprême a président de la république président le futur président de la république Bassirou Diomaye Diakhar mi ngi romb cour suprême waaye jëm le président Ousmane Sonko mi ngi romb cour suprême see ini lang po, oh, more. de Dakar. Cette cour qui a reçu tant de dossiers du président Ousmane Sonko, aujourd'hui, ses partisans et les Sénégalais passent devant cette bâtisse censée symboliser la justice. Le président Ousmane Sonko, apôtre de la justice, vient de déclarer qu'il n'y aura pas de chasse à la sorcière, mais il y aura bien sûr justice. Et cette justice doit être rétablie au nom de tous nos martyrs, au nom de tous ceux qui ont subi de plein fouet cette injustice du régime dictatorial de Macky malgré l'esprit de pardon du président Ousmane Sonko et du président Basirou Diomaye Faye, il va falloir rendre justice. Et c'est ainsi, ainsi va le monde, ainsi va la démocratie, ainsi va les pays souverains. noonu mi ngi noonu Diomaye président Ousmane Sonko sepultura. direction la Médina président nee na nañu dem Médina nañu jaar Médina chờ mày con cơ con cơ con cơ môi chờ mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Azura Fall lay waxal Azura ngi nii yor drapeau bi mi ngi noonu waa ji nee laa bëgg sama xol moo tax ma yor drapeau bi di ko yëngal mi ngi noonu mi ngi noonu les toujours au-dessus du président Ousmane Sonko le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi nekk ci oto bi

Nyanyi Sumbe Jun Nyanyi Sumbe Jun Nyanyi Sumbe Jun Nyanyi Sumbe Jun Nyanyi Sumbe Jun La caravane du président Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñoo ngi tollu Soumbédioune war a dugg Médina nous difficile de progresser ici à hauteur de Soumbédioune sur la corniche ouest jafe na nous progresser Nous rendez-vous Medina. Medina, ça sera historique Batali, président Nena, il n'y aura pas de vengeance, mais il y aura bien justice. Ousmane Sonko, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye,

Tapé ñoo ngi dugg Gueule tapé, Gueule tapé. la caravane du président Bassirou Diomaye Diakhar Fay et du président Ousmane Sonko non ngi dugg Gueule tapé, Gueule tapé Medina, Gueule tapé Medina le président Ousmane Sonko, le président Bassirou Diomaye ngi noonu président Ousmane Sonko ngi noonu Abass Fall ngi noonu Dakar ngi nii borom Ndakaaru ñoo ngi doxandu biir Ndakaaru Bassirou Diomaye Diakhar Faye président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngi noonu caravane ñi moom Ndakaaru ñooy doxantu Ndakaaru 22 heures passées ñi moom Ndakaaru ñooy doxantu Ndakaaru ndakaaru fay la sant ndakaaru basiru fay ndakaaru abbas fall ndakaaru président ousmane sonko waa mborom ndakaaru yaa ngi nii ku mën na def ku ñeme na woote ndakaaroo ngi nii te demoo ñu fenn gël tappe la ñu yem medina mi ñuy xaar xale yi nee nañ soo jooma ay my Jamai. Sanko, sanko, sanko my Jamai. fal président am ñaari président président Bassirou Jomai, Diakhar Faye ngi l'enfant de Niaganiao borom loxo l'homme qui a théorisé et a affirmé et a démontré la clochardisation de la justice sénégalaise. Il est là, libre, avec le président Ousmane Sonko. tey jii Boram su Dakaru Bassirou Faye mooy doxantu Bakaru ànd président Ousmane Sonko. il ay vrai doomu ndey lañu duñu ay doomu intérêt venu ay élection. Basirou Jomai Jakhar Faye nomi il est là il est là Basirou Jomai Jakar Faye les leen ci la Gueule Tapée la Médina est sorti accueillir le président Bassirou Jomai Diakhar Faye Nous l'enfant de Ndiaganiao l'inspecteur des impôts et domaines l'homme aux mains propres doomu le président Ousmane Sonko qui est tout te doom de guutu ci intérêt doomu on te du élection en volée, Bassirou Jomai, Jahar, Faye l'homme qui n'a jamais peur ndax de Diakhar ci séeréer mooy nit bu sul ragal ku ragal ku ragal mi ngi mi l'ombre du président Ousmane Sonko Basiru Jomai, Jahar, Faye la Gueule Tapée dit oui Medina, Gueule Tapée Medina Gueltapé Medina Gueltapé xolu Ndakaaroo ngi nii Diomaye mi ngi noonu mi ngi noonu Gueltapé Gueltapé Gueltapé mi ngi noonu mi ngi noonu président Bassirou Diomaye président Ousmane Sonko doomu nday yaa noonu xoolal lii président Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñaa ngi noonu quel très beau très beau rendez le rendez-vous le rendez-vous avec le peuple est exceptionnel qui a été réservé au président Ousmane Sonko et au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. để me anh đi sang gần lành Diallo. non benn suba suba suba damay dem dugg Rebeuss. président Ousmane Sonko Jelman président Bassirou Diomaye Jelman Diaw agent sécurité Jelman Abass Fall Jelman Azoura Fall Jelman suba damay dem Rebeuss suba damay dem La famille patriotique. La famille patriotique. On rigole. Le président Mansoko. Aussi taquin qu'il est. man lay sànni picc Mal Diallo un reporter lay sànni picc nee na oto bi ñëpp dem nañ jël ba mu des man suba damay dem jël suba damay dem de président ak sénégalais yi la présidentielle yi président ñu ngi koy jox président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ndakaaroo ngi nii Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko ngi nii Dakar ne dort pas mooy Sonko Sonko mooy Diomaye Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko motaar yaa ngi noonu motaar yaa ngi noonu mi ngi noonu le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko Dakar en ébullition Le rendez-vous du peuple avec le président Basirou Thomas Jara Faye mu ngi noonu ak reetaan ju président Ousmane Sonko xolal président président xale bi waxal mi ngi noonu président xale yi la doon nuyoo ñaari xale yi la doon nuyoo ak am yitte ak am pas-pas ak bëgg xale président Ousmane Président Ousmane Sonko. Président Bassirou Jomai Tchakar, Fai, Dakar en ngi Dakar en fête. Dakar en ébullition. Le président Ousmane Sonko. Le président Bassirou Jomai Tchakar, Fai, On a offert maïnen nañ menino menino, en ébullition Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye PLN menyuapkan idea mundai lain degantan eleksi boleh ulen politik boleh ulen ini Boa! Presidente!

Presidão! regular prayers trong 20 Stone Cold field goal.

pexe yu bëri la gàllankoor yu bëri la wala ñu seen bàyyi seen bopp Zumbi! Médina président Bassirou Diomaye Faye ànd président Ousmane Sonko yi sillonné Ndakaaru lii di sorti bu njëkk gannaaw li fi xewoon yëpp PDC Mbaye pour accueillir Obrigado. Wojtek Paskolowany. ngi noonu xool ko président Ousmane Sonko Fass avec le président Ousmane Sonko. C'est une marée humaine, marée humaine motop du président. marée humaine pour le président Ousmane Sonko. De la Corniche à la Médina en passant par Gueltapé face où nous sommes présentement, président Ousmane Sonko. Dakar en évolution. ambiance exceptionnelle de Medina Goltapé face Coloban pour accueillir le président Ousmane Sonko. ngi noonu ñoo ngi Gueule Tapée Fass Colobane regardez cette marée humaine xoolal mbooloo mi xoolal mbooloo mi xoolal mbooloo mi ci biti Dakar tey nelawul président Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Faye Sonko! Sonko, my Jamal! Jamal, my Sonko! Sonko, my Jamal! Jamal, my Sonko! Sonko, my Jamal! Exceptionnel accueil! Exceptionnel accueil! Exceptionnel accueil! Diomaye président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Dakar tey foo sànni matu mu dama mu tàkk mi ngi noonu lii ma saam lii ma saam président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi noonu Sénégal génn na Ndakaaru génn na génn nañ teertu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngi noonu mi noonu président Bassirou Diomaye mi ngi noonu doomu ndeyu président Ousmane Sonko borom loyauté bi ay waay lii neex na waay lii neex na waay Sénégal a ngi nii Dakar a ngi nii Dakar a ngi noonu Dakaru Njaay wala Dakaru Fay Dakaru Fay Sonko Dakaru Fay Sonko Dakaru Fay Sonko Dakar a ngi nii Dakar a ngi nii Basiru Jomaay Faay Dakaru Fay na Sonko Ndakaaru fay Sonko mi noonu mi noonu ndeysaan Ndakaar a noonu yaay booy yi kontaan nañ jigéen ñi kontaan nañ ndaw yi kontaan nañ Diomaye ñëw na Diomaye ñëw na Diomaye bu njaga ñaaw Diomaye bu Sénégal Diomaye bu Ousmane Sonko cagaron y no, no. Nagaru Amnaboro. ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye domou le président Ousmane Sonko domou le président Ousmane Sonko élection les wulen politique boolewu Baganek bëgg Nagaru meeru Ndakaaru bolé wulen pour les wulen l'homme de Ndiaganiao l'ombre du président Ousmane Sonko l'homme de confiance du président Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Jagar, Faye le très prochain président de la République du Sénégal nous nous, Bassirou Diomaye Jakar, Faye Nongi ngi nongi ñoo ngi noonu Gueule Tapée face Colobane la ñuy l'hymne de la jeunesse l'hymne des patriotes du Sénégal Son corrects la ñuy topo. Son les la ñuy topo. dem électeurs, dans le électeur le président Ousmane Sonko wax le président Bassirou Diomaye Faye président Ousmane Sonko Medina ngi nii Gueule Tapée Fass ngi nii Ndakaaru ngi nii ku mën na def ku mën na def ku mën na def Diomaye ngi noonu Diomaye ngi noonu Diomaye bu Sonko Diomaye bu Sénégal Diomaye bu Pastef Ousmane Sonko suba ñoo ngi si Ziguinchor campagne bi day soog a door noonu Diomaye bu Sonko Mettez les cœurs mettez les cœurs nañu ndaw ci kër yi Sonko gi noonu président fal benn président tegi ñaari président Diomaye a Presidente Jomai, Jamais, presidente, jamais, presidente, jamais. Meninonu, quem vai defender o presidente Usman Sonko? Quem vai agarrar o Usman Sonko? kii muy doomu ndey Ousmane Sonko kii la Ousmane Sonko daan nal waa Sénégal Aziz Ayoyo l'histoire s'écrit ku ñaanul doo tànnal sa réew Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Diakhar Faye le programme des patriotes pour le Sénégal on va prendre l'école sénégalaise comme école à ñuy président Sonko président Chomaï Nena, Buffalo d'ici 2027 Ben abri provisoire d'autres du Sénégal président Jomai Mouni, Buffalo, les plus lépp li nga double flux à classe multiple d'autres Sénégal et ce avant 2027 Inch'Allah. président Jomai Nena, Buffalo, Saint-Dominique école primaire Dini j'ang anglais comme ni ñuy français dinañ leen jàngal wolof dinañ leen jàngal pulaar dinañ leen jàngal séeréer dinañ leen jàngal ci seen ay la grande révolution de l'école sénégalaise en cinq ans nee na dina tabax lu soixante salles de classe avant 2027. président Diomaye nee na dina conditions de vie et de travail des enseignants. la révolution de l'école sénégalaise, c'est avec le programme, le projet des patriotes du Sénégal. Chaque jour, je vais vous parler d'un point ou de plusieurs points du programme du président Basirou Diomaye Jahar, Fay mais nous, nous la jonction la jonction est là admirez ça admirez ça admirez cette liesse populaire admirer ces gens, admirer ces Sénégalais, admirer ces milliers de cœurs qui vivent. xoolal ndawu Sénégal ndawu Sénégal kontaan nañ ndawu Sénégal fireeku nañ ndawu Sénégal am nañ détermination xeex nañ ba ndam am xeex nañ ba président Sonko génn xeex nañ ba président Diomaye génn xeex nañ te dinañ xeex ba fal président Diomaye Faye Sénégal ngi noonu Sénégal ngi noonu lii mastam lii mastam lii mastam lii mastam président Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Sénégal Sénégal borom Ndakaaroy borom Sénégal Diomaye et voici le président Ousmane Sonko président Osman Sogo! Osaka!

excepcional, excepcional. Son como el Jamal. Son como el Jamal. Excepcional, excepcional. Lima Sam, Président Ousmane Sonko. Président Ousmane Sonko. Jox leen ma kër donnez-moi les cœurs. Donnez-moi les cœurs. Des cœurs pour le président Ousmane Sonko. Le pour le président Ousmane Sonko. Président Jamal Faye. Oh, exceptionnel, exceptionnel. C'est une marée humaine, c'est une marée humaine. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Libastam, Libastam, Libastam, President Usman Soko. Kumana, Allahu Akbar. Exceptional. Exceptional. Menguinano! Menguinano! Menguinano! Jamais vai! Presidente Usman Sonko! Dominei retanen! Retanen! Ai beau! Oh, c'est beau! Oh, c'est magnifique! Presidente Usman Sonko! Presidente. Bassirou Diomaye Diakhar Faye le Sénégal l'espoir du Sénégal et de la jeunesse Diomaye exceptional, exceptional. ah, ah. Owe owe buur Yàlla ñoo exceptionnel, exceptionnel, le président Ousmane Sonko, le président Basirou Jomai Jafar Faye, l'ombre du président, l'homme de confiance d'Ousmane Sonko, Jomai Bundaganyao, Jomai Sonko, Jomai Boupastek. Le 24 février, ñu jël réew mi le 24 février ñu tekki Sénégal le 24 février ñu libéré réew mi le 24 février ñu wutal xale yu ndaw président Ousmane Sonko. Exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. Président Ousmane Sonko. Siru Jamai Jagar 5. kanam mais rien de méchant un des véhicules boo amoon problème on repart ñoo ngi continuer di dem Ndakaaru ñu nii Ndakaaru ñu nii borom Ndakaaru ñëw na président Ousmane Sonko gars yi li ma ne gars rek Ndakaaru fay na Sonko mooy Ndakaaru bu Diomaye Faye Ndakaaru bu Ousmane Sonko mi ngi noonu après trois heures de caravane ñoo ngi soog a agsi Dial Diop ñoo ngi a agsi